En tout cas, euh, selon le responsable politique PASTEF Dakar, les gens doivent circuler librement en ville. Ainsi, il prévient les nouvelles autorités sur ce qu'il qualifie d'accès de zèle. Mais prévenir exactement euh, les autorités, madame Kilfa Yessi, pour nous dadi euh, takal lu mel sunu mu gëna nous ndaxte japp nañ itam askan wi faaw ñu dadi wër mëna circuler fu leen neex euh, que ce soit talibou bu dem palais ou kon que ce soit votre palais et tant d'autres et tant d'autres ndaxte askan wi nak il faut ñu gëna jégué ak président gëna li nga xam nekk moo euh, fu neex rek dafay war meuna doxani alors mom ki nga xam nekk moo di na ni on ne peut pas interdire à des citoyens de passer de l'autre côté euh, du palais de la République les gens doivent marcher librement en ville japp na ni itam waru ñu interdire ben yon askan wi

alors nous euh, euh, daal exactement itam mbokk téléspectateurs yi si nga que euh, conférence patriotique de Sonko au Grand Théâtre Nous allons daal Watch niki ni inshallah fofu ci allah foofu si que li nga xam que Grand Théâtre d'après itam mu ne conférence bo xam ñu bëri ko daal assister la jeunesse patriotique du Sénégal di li nga xam que modi GPS nak mo daal annoncé ak enthousiasme la tenue d'une conférence politique majeure ouverte à toute la jeunesse sénégalaise.

bobu de rencontre nak euh, des daal inscrire si ben logique fexe itam askanu Sénégal gis bopom bu baax a baax a baax a rôle bu am solo wi na xamni ni itam askan wi ñom jeunes yi ko si réussite projet bi daal ci fofu ci foofu si palais euh, présentiel ki na xamne que modi maître Ngagne dem Touré mu coordinateur euh, de la jeunesse patriotique bu Sénégal di JPS nag euh, mu daal di ni bobu de conférence conférence bu am solo la et que dafa daal di revêtir si ben capital paysage politique sénégalais bo xam amana ñu ko don daal di ni un premier ministre mu bu seen daal di avec sa jeunesse exactement to loolu lepp na fay daal di dugg si mm, cadre euh, li nga xam ne que humilité manam fexé ba wàccee sa bop exactement tollook ndaw ñi ak askan wi ma euh, ni euh, pour la première fois ñu gis un tel événement euh, premier ministre de ko daal di présider di ki nga xam que Ousmane Sonko donc suba nak événement yi foofu si waanu grand théâtre là mu ngi ki nga xam ne que moo Ousmane Sonko moo fa si daal di amal Inshallah si nous mu gën a yaatoo bi nga xam ne encore une fois le rôle de la jeunesse dans ce projet ndaw ñi rôle bi nga xamni tam itam ko ba ji projet bi. Euh, daal wara war réussir fofu si daanu ko palais euh, présidentiel ou président Diomaye Diakhar fa ak ki nga xam ne moo Ousmane Sonko euh, ñu daal fay wara a nek ni neen daal di ñëw si kanam tuuti incha allah installation yi première installation yi xol yëf nak lay démé fofu si daanu ko grand théâtre ma tout est fin prêt pour ñu wara di war a mën rek conférence suba inshallah aussi ñi xaar. Euh, pas mal de thématiques Ousmane Sonko fa seeni ko daal di war a mën a defe ni ñu daal assister exactement de sa déclaration de politique euh, générale alors téléspectateurs spectateurs, ñu batay tey seen émission li nga xamné que modi euh, une semaine au Sénégal donc dañuy daal di jàll si la revue des titres li nga xamni ni tay tey kay bokk né daal di koy si nu mu gëna yato yaatoo ah balaa ñoo daal di kat yi bi day jotay exactement